équipe technique yi aju ci kuréel gi Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké xaalif général de Mourides samp ngir wallu askan wi loolu ci mbënn mi ñu ngi wéel seenub liggéey ci ay gox yu fasantikoo ci dëkk bu tedd bi di Touba ñu ànd ko ak ay kuréel ànd ko ak état du Sénégal ñu ngi amal liggéey bu mucc ayib. di tàmbalee jàkkee sëñ Abdou Khadir léegi jaar fi nga xam ne mooy tëli gerte bi léegi continuer ñuy sotti fa nga xam ne mooy en face kër sëñ Mamborom sëñ Mourtala fexe nañ ba wut ay tiwo yoo xam ne dafa manqué woon joge Dakar toll na ci dix millions trois cent et quelque. léegi nag manquoon nañ ko ba ndox mi di wàcc mais taw bii bi daa rempliraat lépp tiwo bi ñu bi ñu monté ni tiwo deux cent la léegi nag pour nga pour nga pour nga gas ko ci suuf il faut li ñu capitaine bi waxoon dane il faut ñu jël tiwo deux cent cinquante parce que tiwo deux cent mënoo ci def tiwo deux pour mu dem tiwo deux cent cinquante ngay jël ñu roof ko ci loolu lañ doon gas nii ngeen ngeen gis ñu tàmbali léegi taal nañ machine bi machine u efface la machine efface taal machine bi doole ji mën naa ni mën naa ni deux heures de temps fii mën na jeex maanaam juróom-benn téeméeri kër lañ la ñuy def yoo xam ne dafay génn ndox mi yenn tëli yi la jeex mais jeexagul ci biir kër yi waaw ba léegi jeexagul ci biir kër yi kon lépp lu ñu mën a yokk ci pompe yi génnee biir kër yi ñu gaaw ko yokk parce que loolu tam des na ñu yokk ko bu ko defee yokk effectif bi teyit ñu dimbali ñu wax ak borom oto yi ndax fii branche la woon nañ ko yàq nañ fi trois tiwo oto yi nga xam dañuy jógee Guédé di jaar nii ak yeneen yi toj nañ ci trois tiwo loolu bokk na ci lu ñu taree suñu liggéey te buñ ko yàqee population bi dañuy wax rek ñoom wax na ko ni ñu yàq nañ ko yàq ko léegi diggante ba bala ñu ko def dañu am 4 heures de pour ñu defar ko ndax liggéey bu métti la moom daal nañ mel ne xel koom lañ nekk parce que ku la ni léegi la ñuy ko ci une semaine wala mu natt ko ci déngale comme 15 jours wala mu natt ko ci weer da lay nax liggéey boobu nag ginnaaw bi ñu ko tënkee ngir jumtukaay yu mucc ayib yi nga xam ne ni yor nañ ko ñenn ñi sax dañoo daal fare ci yenn kër yi ngir génne ndox mi ci biti. boo xoolee ci suba ak léegi yaakaar naa du am naa six kër yoo xamante ni yëpp génne nañu ndox mi ba lépp jeex na fii mu nekk septième bi lépp jeex na parce que saa bu ñu xëyee cinq machine la ñuy yor machine yooyu bu ñu leen jàppee ba nga xam ne nii gasoil bi gasoil bi du manqué dara du manqué. démb euh, dafa am foo xamante ne nii foofu dañ faa njëkkoon muy fële ci biir euh, kër sëñ Seydil Mokhtar foofu dañu faa njëkkee woon après bu ñu jóge foofu ñu soog a dem daa ñu soog a dugg biir daaru minam sëñ Sidil Mokhtar foofu am nañ fa lu war a mot ay six kër fële ñu fii ñu am fi ay set kër loolu boo xoolee moom moom jippi bañ jógee ak léegi ci la ñu nekk parce que du nun rek équipe bi nga xam ne ni parce que équipe bi dafa am yeneen équipe yi ñu bu àndaloon mais dañoo dem ba liggéey bi soog a man ma soog ñu soog man mi ñu soog maa ber équipe ma soog a ànd ak samay élément ñu soog a nekk ci kaw terrain bi mais affaire bi moom vraiment di nga dem foo xam ne kër yoo xam ne wax dëgg yàlla sa yaram day daw lool day metti lool yenn ci mbokki taalibe yooyu nga xam ne nii ñu ngi dëkk ci dëkk bu tedd bi di Touba te amoon ay jafe-jafe ci ndox mi gannaaw ay fan ñu doon dund lu metti biral leen seenu cant ci wàllu gi nga xam ne nii commission technique bi wàllu na leen ko man fi mu ne sama bagage yëpp mu ngi nii ci biir mais dafa yàqu woon kër gee itam feesoon na dell waaye yéen ñi nga xamante ne ay ndaw ngeen ñu yebal leen ñi ngi leen di sant bu baax di leen gërëm ci turu sëñ Muntaxa ndax niñ doon dundee ndox mi metti na waaye bi ngeen ñëwee bi ngeen duggsee sant nañ suñ borom bu baax di sant sëñ Muntaxa mi nga xam ne moo leen fi yebal mu nekk ab liggéey boo xam ne nii ci fàttali mu ngi daal di bàyyeekoo ci ndigalal Cheikh Mouhamadul Muntaxa Mbàkke mu taxawal ak kuréel fasantikoo ci commune bu Touba xisbu tarxiya ak Touba ca kanam ñu boole seeni xel seeni xalaat seeni doole ak seeni am-am ànd ko ak mboolem julliti ak taalibe yi ngir nag ñii nga xam ne suñ borom dogal na ñu daal di loru ci mbënn mi ñu daal di leen tàgganti ni ñu ko nemmeekoo nag ci technique bi noonu lu amee ci mboolem commission yi nga xam ne nii saa su nekk ñu ngi joxante dox daje fii ci kër Serigne Touba gi jàkkaarloog jumaa ji ngir nag nos liggéey bi ba ni ko Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké bëggee ñu amee ko noonu. هادك المريد وجنة من هادك المريد